jërë ngeen jëf sunu mbokku internautes yi mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci Bawal Info TV ñoo ngi leen di nuyu mbokk yi nag euh, tey dañoo bëgg a ñëw wax sunu xalaat ci chronique bi nga xam ne journaliste bii di ma Madiambal Diagne def na ko wax ne waxtu wi jot na ngir Touba récompenser jëf yi Macky Sall di jëf ci Touba maanaam waxtu wi daal jot na ngir Touba delloo njukkal njiitu réew mi si li nga xam ne mu ngi koy jëf ci dëkk bi di Touba. loolu la ma Madiambal Diagne wax loolu dañ see bëgg indi sunu xalaat ma ngi ko bind nag ginnaaw bi njiitu réew mi inauguré hôpitalu Touba bi liir naa chronique ma Madiambal jaañ bi ba mu yegg Macky nag li ëpp lu koy yàqal Touba mooy ay jegeñaaleem yoo xam ne amuñu benn worma ci communauté mouride président Macky Sall li mu war a njëkk jàpp du caagi ne dafa deful ay réalisation Touba moo tax Touba voté luñu ko li tax Touba ñu bari ànduñu ak président Macky Sall bokk na ci moom aw doxalinam léeg-léeg waaye li si ëpp tamit ñi nga xam ne ñooy ay jegeñaaleem ndax ma jambal Diagne mii rek moom si jegeñaale njiitu réew mi la bokk ndax day wax xaritoom ak njiitu réew mi te yàgg nañ koo gis mu bind loo xam ne ci yoonu murit dafay naqari communauté murit bi yépp beneen bi mooy bari nañu ànd ak Macky jamono jii yàgg nañoo wax aw safaan wala kàddu yu ñàkk worma ci sunu kilifa diine yi loolu bokk na si li tax Touba ñu bari mënuñu ànd ak Macky ci lu jëm ci wàllum politik askan wi yeewoo Touba dafa am benn gisin bu ñuy gis ak benn doxalin bu ñuy doxalee taalibe murit yi Serigne Touba Xaadimu Rasuul mooy seen référence leneen feesul seen bët du hôpital du autoroute du leneen beneen bi mooy il faut que nit ñi xam ne dafa am am réew nu muy doxee jàpp ne njiitu réew mi inauguré na hôpital def na benn réalisation mooy tax moo war a tax askan woowu yépp bàbbeeku votel ko ku jàpp loolu mooy yow xamuloo ay principe républicain ak ni réew di doxe hôpital bi du président Macky Sall moo ko def waaye Sénégal moo ko def ngir ay sénégalais te xaalis bi jógewul ci poosu président Macky Sall waaye ci gafakak askanu Sénégal la génnee Sénégal jël ko liggéeyal ko ay sénégalais il ñu xam loolu d'abord te président bi dañ ko fal ngir mu def ay réalisation ngir mu liggéey président Macky Sall dañ ko fal ci bopp réew mi jox ko alal ngir mu def ay réalisation def la wuñ ko leneen kon askan wi nga xam ne ñooy yeewoo Touba yeewoo feneen naam buñ fa defee ay réalisation kenn ku nekk am na sañ-sañ voteel ku la neex te président Macky Sall dafa doon inaugurer hôpital bi en tant que chef de l'État waaye ci biir wax ji dafa dem ba fàtte sax casquette chef de l'État yor casquette chef de partie leneen loo xamante ni mën naa naqari murid yépp mooy ay fan wala sëriñ bi dafay yàgg tere lépp lu jëm ci wàllum xeetoo wàllum politique président Macky Sall ñëw ba ci dëkk bi dem bay wax ne munu fee ñàkk def politique ñu gis xumbaay beeg rumbaay beeg ambiance mitin beeg loolu bëri na ñoo xamante ni ci Touba mbir moomu neexu leen te bu doon beneen opposant moo ko def tey kenn du dégg loolu naqari na murid kon président Macky Sall bu paasee jege ñaaleem yi nga xamante ni dañuy faral di yëkkati ay kàddu yu ñàkk worma di ko teg ci yoonu murit loolu bokk na si li tax ñu bari mënuñu ànd ak président Macky Sall jamonoy Karim Wade doon ngeen dégg ñu ne Serigne Sidi Mokhtar ñaan na ko ba tàyyi la cay am gisoon ngeen ko ak Abdoulaye Wade mi nga xam ne jàpp nañu ne daf ko humilier te Abdoulaye Wade dafa am fu ko murit yi teg. beneen bi mooy gisoon nañ fi otoy présidence ci biir jumaa ji gisoon nañ fi kaawu Cheikh Béthio coon kaawu Dangote ak njabootuk Serigne saaliw li si lépp jërul dellu si dégg ngeen wala xam ngeen ni mu demee kon président Macky sàll du ay investissement mooy tax askanu Touba ànd ak moom ndax askanu Touba askan lañ woo xam ne wu autonome lañ askan wu wu moom seen bopp lañ askan wu gëm seen bopp lañ askan wu fier ci seen bopp lañ askan wu am référence lañ te askan référence boobu mooy sëñ Touba Xaadim Rasool askan la tamit boo xamante ni li ñu yaakaar ci état bëriwut te askan la woo xam ne tamit dañoo xam ne hôpital bii état bi def bu ko sëriñ bi bëggoon suba suba suba dajale xaalis bu nu toll murid murid dajaleel ko ko murid dajaleel ko ko loolu moom ñëpp xam nañu ko ndax ku taxaw si Masaalikul Jinaan ma mën a taxaw ci ab université ab hôpital mënulaa yëngal kon li ñu bëgg a wax foofu tontu ko jambal Diagne il faut mu xam ne askanu Touba ay nit lañ yoo xam ne xam nañu li leen war ci réew mi xam nañu tamit am réew ni muy doxee askanu Touba xam nañu ne lañ fa def askan waa ko mérito ndax mooy deuxième ville du Sénégal te Touba dañoo am sañ-sañ faju dafa am ñaari mbir yoo xam ne nag moo gën a yitteel Touba. muy assainissement Touba ak Touba am ndox mu sell loolu lu yitteel askan wi na ndax dëkk boo xam ne bëri na koñ yoo xamante ni du ñu am ndox jafe-jafe la askan wi am ci mbirum assainissement loolu lu Touba soxla la kon mbokk yi ñu leen di sant bu baax di leen di gërëm